ginnaaw bima len nuyo euh remercier ñep ji ci sen teewaay remercier presse bi tay parce que li ñu dajale fi tay lu am mana la lu am solo la parce que lu itel askan bi yep la lu xew fi nak xëy mo xew fu nek ci Sénégal waye japp nañ ne fi la waalo gën a aaye dëkk bi nak ci jàmm ak salaam lañu ñu mës a nekk ba cinq coowal suuf si commencé fii li ko indi nag mooy dafa am benn famille Jibril waa kër Jibril Déthié cuun dañ koy tudd mu ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci fen fen parce que ñu ngi ci kaw àdduna parce que li ñuy nekk ñu ngi ci suñu dëgg aussi famille Bobu, dafa yor ay këyit yu mu jëlee impôt et domaine ak yu mu jëlee ci administration coloniale bobu Sénégal amul indépendance yu ñu naan certificat administratif certificat administratif moy këyit buy wone ne que souf si kat man ma ci bay wala m'a ci jëmbat garab wala ma ci defar dëkkuwaay donc kat yen nguur gi dama bëgg souf si ngeen def ko ci sama tour mu nekk sama momel loolu moy certificat administratif certificat administratif bobu téeméeri hectare ak juróom ben fuk ak juróom-ñett la won 2005 nak am ben way bu jóge fële indi certificat administratif bobu dem communauté rurale bu Sangalkam dañ koy wax mu leer ñu defal len délibération 60 hectares biñ ko defalee délibération mu indi ay bulldozer pour maasale ko defe naa fii ñu taxaw tay tolam la won am na fi tool ñeneen am fi tool waaye amu fi 60 hectares parce que fi ñu nekk ni bu am moitié hectare ci la yëpp bi ñu jógee ci loolu mille 2007 bi ñuy waaj a créer ZAC bi fii beneen pàcc beneen membre famille bi mooy waa kër Jibril Déthié Thioune ñoom tamit dem jilaat même kayit boobu certificat administratif boobu dem sangal Sangalkam ñu defaral leen délibération vingt hectares te jamono yooyu bi ñuy defar délibération yooyu képp ku fi nekk mu ngeeg sa délibération te yoon dafa ne balaa nga affecté terre da nga lay da lay wóor ne nekk foofu kenn nekku fa wala bu amee ku fa nekk naan teg fa moomeel bu ko def moomeel bu dee mettre ko envaleur ngeen mettre ko en demeure mu mettre ko wala ngeen désaffecté ko balaa ngeen koy jox keneen waaye nga jox ko Massamba jox ko Mademba jox ko Kumba jox ko Paate te loolu même nit ki moo koy signé donc loolu nag moo indi jafe-jafe yu bëri fii yëpp comme kayit yooyu. lu dul yoon bi loolu amee. receveur des domaines bi fi nekkoon bi mu jëlee kayit yi mu ñëw fii mu ne famille boobu xaw ma fu ngeen jaar ba état yoral leen suuf war leen ndàmp waaye fee ngeen bëgg ñu dàmpee leen ko kunul ngalam moo amul communauté rural bii fi nekkoon mooy Sangalkam moo délibéré ay kayit ay kayit yu tegul fenn kayit yooyu ñu dem domaine boole ak kayit yu tegul fenn Nous jël lo xamné xawna xaw ñu nous ko ci kawam bëgg mabal nit ñi amna lu xew nak ñu a fi pour aduna bi famille bi dafa xey rek indil ñu ay assignation en expulsion ak démolition nous ñu la ensuite toj sa kër war nañu dem tribunal le 5 novembre dem donc il faut que nit ñi ñep xam ko donc kayit yooyu ñu doon xeex 2005 2007 ba fi mu nekk ni kayit yu bon yooyu tappale boobu wuruj boobu njuj njaaj boobu mooy law ba tey loolu nag askan bi kenn àndu ci ñëpp a ngi président de la république moom la ñuy interpellé président de la république bis bu nekk ñu gis la ci télé yi dégg la ci rajo yi ngay wax mbirum foncier bi loolu léegi loolu loolu saar boobu mokk na ñëpp xam nañu réew mi foo lal gom la mu ngi metti ci walu suuf waye safara bi nak ci sa loxo la nek donc fi ku nun bi la ñuy xaar président de la république askan Bangi, taxaw di la joxogn di la deglu injustice bi xew fi te sa njabot moko def parce que suma ne sa njabot sa administration te ñep xam nañ administration du mané ñep ay jaabal lañu waye ñep

yat jibul ay kaddu jib ay documents wu jib parce que ay républicain lañ fi biñ koy jënd biñ fi dëkk domaine national lawon après état bi pour régler problème enseignants yi créer ZAC bi def ko titre foncier de l'état biñ ko défé titre foncier de l'état titre foncier état amul kenn ku am droit aliéné ko

domaine à cadastre ñu faut régulariser il faut ngeen fournir un dossier dossier bi ñu fournir ko biñ ko c'était en cinq exemplaires mu dem Dakar def tous les ministères auparavant on avait vu tous les ministres pratiquement interpréter sur la question bi ñu une réponse favorable parce qu'on a été jusqu'à la médiature la médiature est ci

C'est une forme adverse pour nous utiliser contre nous. Nous nous disparaître de la zone c'est tout ce qu'on demande.